sëñ lay daa bëggoon tàmbali liggéey bi ci ni nga xam ne ni la ko xalaate ren ji dëppale ko ak sa ndigal ndax day wax ne moom ci yow rek lay jële ndigal du la weesu jëm fenn ginnaaw yàlla dogal na daara ji sa daara ñu taxawal ko ci sa ndigal di fi dàkk bëggu sëriñ bi te bëggu sëriñ bi génn jiituwu ci li mu waxoon ne su ma doon wax ne gimiñ dana ma jàpp duma ko waxee lu dut ne yéene ji ma amoon ci dëkk Touba di fa jàngale alxuraan loolu ku ne xam na ne moo doon ak bëggam moo doon yéeneem kon nag képp ku ko dëkkal Touba di ko jàngaleel alxuraan day mel ne wóotu nga ko ci lam bëggoon te mbooleem li mu bëgg lépp defal na ko boppam loolu rek la ko yàlla tegee am nattu kon bu yàlla dogalee nga wut fii daara ji muy daaray maam Cheikh nga def fi jàngale alxuraan duppee ko sa wayjur bu baax wi ay gone yu bari jaare fi xam seen farata ci seen diine ay gone yu bari jaare fi la leen seen lislaam di tegoon ci luy tax ñu mat mu kàllaf nga defal leen ko ba noppi di saytu seen wér-gi-yaram nga tàmbali woon ko ci jamonoy Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar mu ñoroon ko lool saa yu jotee mu yabal doomam wala ki yore kàddoom mu ànd ak sëriñ bi ñëw fi teew ba ci jamonoy Cheikh Mouhamadul Muntaxa dara mosu cee manqué jiitu na ko sax ci jamonoy El Hadj Mouhamadou Lamine Baara loolu lépp nag nga ciy dàkk bëggug sëriñ bi sëriñ bi it di dàkk bëggug sëriñ bi. tey jii nag mu wax ne ginnaaw yàlla dogal na jamono soppeeku te ñoom sax soppeeku jamono seen yoon nekku ci ndigalul sëriñ bi rek lañuy dàkk waaye ñu gis ne sëriñ bi joxe na ndigal ci nanu jëfandikoo sabab li te wakkirlu ci yàlla bokk na ci jëfandikoo sabab yi mooy li nga xam ne dal na xelum docteur yi ci zaahir ñu fekk leen ca te bàyyee suñu bopp ak sëriñ bi moo tax mu ne woon kon ren day wàññi jataay bi yëgal yëg yëglewu ko sax lu ëpp ci docteur yi daan ñëw it amoon nañ yéeney ñëw waaye moo leen wax ne comme jamono deme nii bàyyi leen rek ma dem demaale leen famille bi it ñu waroon a ñëw yëpp ñëw mujj ñu mën a ñëw waaye ñu ci ñëw rek ñëwaale nañ ñu ci des eh, bu seen way jur ñëwoon képp doy na ñoom ñëpp ñëw nañ kon bu ñëwee àndaat ak ñoom day mel ne ñi amoon yéene ñëw ñëpp ñëw nañ sa Baay Faal ba di soxna Ariet ku ne xam ne liggéey bi moo ko daan jiite waaye tey tànk yee téye ko muy sàkku nga ñaanal ko waaye day mel ne yebal nag njabootu boppam ñu ñëw teewal ko bokk yëpp ñëw teew sëñ daara bi ñëw wàcc nañ alxuraan ji ba xat mu kaamil bi neexal yi mu leen daan defal itam dara manqué wu ci wutal na ñenn ñi ay kaamile alquran ñenn ñi mu wutal leen ay seen neexali bopp ne ci saag yi lu mel ne li docteur yi digle muy diggante ordre sevel ak madaar ak sel yi ñuy laal ak ay tiset wutal na leen ko ñenn ñi mu wutal leen ay portable ñi nga xam ne ñoo daan jot ci neexal yi ñu jot ci neexal yooyu waaye dafa wax ne yooyu yëpp nag addiyee sëñ bi da ciy jiitu da am sëriñ bi moo waxoon ne sun borom mooma moom loo alquran ba noppi nag mooy samam koom mooy sama alal ji ma gën a foo fonk mu ne woon kon day yëkkati kaamilub sëriñ bi jox ko ko ba noppi soo ko tàmbalee jox dongo yi kon bisimilah ñu jox sëriñ bi ah mat na daal lii daal ci turu njaboot gi yëpp muy euh, Pape Faye Ousmane ak sëñ Saali Papa Diouf yëpp daal waaw <laughs> ah, ñépp daal waaw ci njiital ci njiital sunu yaay moo ko yëkkati gërëmale ko waaw gërëm boo xam ne xaw ma nuñ koy waxee xam xam nañ ko muy tàmbalee daal mais xamuñu fu mu yem wax dëgg yàlla kontaan ci yow ak cant waaw wax ak cant bu bëree bëree bëree bëree bëree bëree ndax ñëwam fii waaw day ci ñun mm-hmm. ak ñaax mm-hmm. di aussi ci ñun wax dëgg yàlla tegu ci yoon donc ñu ngi ciy am mbégte lool di ko sant ndax wax dëgg yàlla xam nañ ne lu far lu mu lu mu yëg na lool bég bi bés bi ndax man ñëw naa fi ba tàyyi bokk kook moom wax dëgg yàlla famille bi ñi ngi koy bëggee waaye ñi ngi am mbégte ànd ceeg moom te di yëg ne ak ñaax la ci ñun itamit ñi ngay sant di ko ñaanal yàlla eh, Mbàkke yàlla na fi yàgg mu ànd ak wér di jël sunu ziyaar di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci laxutu njabootu sëñ Touba yëpp kontaan nañ lool ñu ngi sant di gërëm ndax sañ Fallou nii rek la dëkke maanaam bu newul ci lii mi ngi ci lu ni mel saa bu xëyee rek mi ngi ci lii lu sagal yoonu murit lu dundal lislaam lu dundal alxuraan te noonu mu ko waxee alxuraan moo doonoon trésor Serigne Touba moo doon trésor magasin Serigne Touba kon nag Serigne Fallou njaboot gi la tërale lii ak ak ak nag suñ maamu suñu as gëre suñ du toog li mu wax rek dañ si loon si leeral yokkal ko si dara suñu waajuru góor bi mu ñuy yóbbu njaareem kër sëñ Moustapha Gueye njaareem euh, bi mu demee dañoo nuyoo foofu sëñ bi na nan jàll sa kër sëñ sëñ Moustapha sëriñam mu dem na ko dama bëgg su ma génne àdduna de sama njaboot gi am ñu ma fiy toogal di mu wàcceel alxuraan sëñ bi daat koy ñaanal na ko insha allahu danga ko am kon lii bu ñu ba am lii kon duñu bett ndax waa ñaanu waajuru lew te ab waajur wal ku baax it moo ñu ñaanaloon bi mu yóbbu loola say saboton ne bu di génn àdduna am ñu koy wàcce alxuraan kon loolu ñoo ngi koy sant yàlla bu baax baax di ko sant moom kàddu yi mënuñu ko guddal ndax doonoo nekk as ndongo soo xam ne nii suñuy sëriñ moo toog moo tax duñ mën a gàddal lépp kenn rek moo ci wàcc kon danañ ko jox ab kaamilam waaye ginnaaw kaamil yi dañ ko ittiwoo ci daara ji dañ ko fi faral di jox dongo yi ñu koy jàng kon xam naa yi ci des dañ koy def ci biir daara ji waaye ki wàcc moom ñu jox ko téeréem mais ren ci ndigalam toujours dafa ma ne ma euh, bu sañoon daal ñi nga xam ne ñu ngi ci buntu wàcc ñu bañ leen a teel a jox portable waaw ki waaw ñu bàyyi ba ñu wàcc ki wàcc ñu jox ko portable ñeneen ñi mën a sawar ndax am na ñoo xam ne danga leen di jox rek ñu daal di bër <laughs> waaw euh, dafa am loo xam ne euh, mbooloo mi war nañu koo dégg ku am pas-pas ku ne wala nga am wasi wasila ndax danga ne ko aslamtu nafsi yoo xam ne sama bopp àdduna ak alaxira loo ma digal dinaa loo ma tere dinaa ko bàyyi ku ne xam ne ne am na ci luñ toll muy jàngoro ji xew ñu koy wax corona ñëpp mase ci nañu moytonte ci pas-pasam mu am yëg-yëgu ne loolu dama koy waxat di faral di wax ci sëriñ su bari ku ne xam ne ne fii tey ab dajaloo am na fi waaye damay wax ne ki nga ne ko jox naa sama bopp àdduna ak alaxira dara xewagul nga di ko moytu ndax ndax dégg nga ma waaw ki nga ne jox naan sama àddina ak alaaxira dara xewagul nga mu di la moytu doo ko gis doo ko dégg kon baa bu dara xewee di ngeen di ngeen gisee kon teewaay bii am na lu ngeen ci war a jàngat sunu mag la ñoo bokk bàyyi waaye dañu koy sagoo ndax sunu ñag la ay tànk la ñu ngi ci ginnaaw nekk ci buntu buntu àdduna xëy na léeg-léeg dara war a jóge ci kaw jëm si si ñun jëmm may tax du egsi sunub sag la wax naa ko Modou Bousso mais di ko dawalal bis ma ne ko sëriñ bi suñu sag la dañ ko ñaanal sama borom guddal aw fanam ndax sunu mag la sunu mag la sunu sëriñ sunu mag la sunu sëriñ la dañ koy ñaanal sama guddal aw fanam dañ koy dañ koy sagoo. am ñag na boo ko ñagee ki ci biir tool bi di la ko di la ko di la ko sàmmal loolu def lu dul gërëm ko di ko ñaanal sàmbaram guddal aw sa defoo sa warteef fan dama koy wax si njiit mi di ko wax Modou Bousso mee nee ko daray ki ñaan daray ki ñaan nekkul ci man lépp lu may wax rek jëmi Sëñ Tuubaa rek ak jëmi yàlla rek tax ma di ko wax xëy na gese bi du deme noonu lu bëri ndax li ko war a yitee jamono ji rek la waaye ñi nga ñaanal baax sàmbaram guddal sa fan ci wéral la ci barke borom Tuubaa kon sëriñ bi dafa wax ne nuyoo bi ak cant gi day tàmbalee ci soxna si ndax mën naa wax na lépp rek liggéeyub soxna see ab liggéey nag boo koy liggéey bala ngaa mën a añ dangay dem ci kër ga waaye ba mu koy liggéey metti woon na lool ay sëriñ bi day faral di wax ne nàmpal na ñëpp kenn doongu liggéey mbooloo añe loolu nampé nañ ko ci sëriñ bi ba ngay liggéey metti woon na lool waaye ba añ bi ñëwee tey njaboot gi xam nañ na doon nga sonn waaye nag sant yàlla bu baax ba nga dee sonn ba njaboot gi ñëwee dañoo tege ca tànk ya nga doon doxee rek mooy teg sa tànk ci siraatal mustaqim doon taalibeb sëriñ Tuubaa am wasila te yam ca loolu njaboot gi doone nañ ko ci yow muy lu yàgg nag wóor ko ne amoon ngeen ngërëmul sëñ Modou Rokhaya bu yàgg te ngërëmul sëñ Modou Rokhaya képp mën naa may nit ki lim bëgg àdduna may ko àllaaxira waaye yàlla dimbale leen nag ngeen àndaat moom àndin woo xam ne mbooleem ngërëmul doomi Serigne tubaa lu am moom ak ngërëmul xalifa Serigne Touba bi fu mas a nee na ànd na ko yéen te am ngeen ci ngërëm loole loolu nag ak sant yàlla bu wér la lii nga taxawal nag mu di daaree alxuraan bari na ñu yàlla jox ay milliards te mën nu ko am bari na ñu mokkal alquran sax te mënuñoo am daaree alquran ni ñu ko waxe woon ci njalbeen gi dëkk bi daa doon dëkk boo xam ne rawatina fii nga def daara ji ko xam cosaanul barab bi xam ne lu la yàlla fàggul rekk la waaye ngóor a mayewu ko ndax fii ñu nekk ci àttab sëriñ Mbàkke bu sa la nekk te bi fi sëñ Mbàkke bu say ñëw maam seexantaa Anta ko fi dogal te maam Cheikh la tax man ko ko fay dogal mooy seriñ Touba ko ko jox waaye li taxoon ñu sanc barab bi mooy Serigne tubaa daara la ko defoon yabal fi sëñ Daam Abdourahman Lo yabal fi sëñ bu Buso kii di jàngale alquran kii di jàngale xam-xam loolu képp taxoon ñu sanc suuf si bañ ko sancee muy dox ba ñooñu ñëpp génn àdduna ci zaahir seenu njaboot it mën naa am lépp dem nañ gën nañ àdduna ci saayir yow yàlla baaxe la nga jógee ndakaaru di tuñ ci tuñ ci ba barab bi am fi kër mënoon nga ko def kër goo xam ne da nga koy tudde kërug màggal mënoon nga ko def kër gooy noppaloo waaye def foofu fi dara lu weesu def ko kërug alxuraan la taxoon sëñ tubaa sanc barab bi rek moo taxaat nga def fi kër gi kon googu kër wóor nañu ne kërug sëñ la te alxuraanul karim asar gi ñu ko tuddee itam lasar nee na du lasar uniwersité bu mag ba nekk keer ñu di ko wax asar sëñ Mourtala tudde ko école bii mooy turu dëkk bi kon naka jekk daara la ma sa doon daara naka jekk kon bu la yàlla dimbalee nga def fi daara alquran te alquran sëriñ bi moom bi mu waajalee boppam jëm ci géej gi ba ko yàlla ne tubaab bi de tere na la nga ànd ak mbooloo waaye man may naa la nga ànd ak mbooloo tànnal ci mbooloo mi ko bëgg a àndal daf ko ne naa ànd ak alquran mi ak rasulullahi mi la liggéeyal rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi kon àndu ak dara lu weesu alquran ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam liggéeyal yàlla it ci téeréem bii liggéey boo xam ne yàlla musta wàcce jaam bu liggéeyal yàlla ci alxuraan lu toll li ko ci sëñ Tuubaa liggéeyal wax na ci làmmiñu boppam ne ca géeju ca ba ci làmmiñu boppam téere bi nga xam ne moom la way juram ja bindoon muy sëñ Mbàkke Mor Anta Sali tam yóbbaale ko ci géej gi nee na jàng naa ko foofee junniy yoon junni kaam junni yoon te yàqalu ko la lam doon def ci alxuraan wenn làmmiñ wu mën a toog ci benn barab jàng fa junniy kaamil nag ku dul sëñ Tuubaa ko def ba alxuraan wàccee ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ba bisub tey mbooleem saxaabat yi àndoon ak yonent bi ña ca mokkal alxuraan mënees na leen wàññi ña ca bind kaamilu alxuraan mënees na leen wàññi waaye bi mu ñëwee ci sëñ nag nga xam ne sunu borom moo waxoon ne inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la téere bii maa ko wàcce te maa koy wattu ba addunay tukki du fi jóg sëriñ moo firndeel baat boobu nga xam ne moom la suñu borom wax ndax alxuraan bu nee ci këyit bu fa këyit yi jógee mën na faa jóge waaye su nekkee ci ay dënn ñu koy sottante nag ba ba àdduna tuuti du fi jóg li sëñ Tuubaa mokkalal alxuraan ba bisub tey jii doomu aadama musta wàcce mbooloo mu mokkale noonu alxuraan du ci añaa àndoon ak yonent bi du ci ñee toppoon ci ginnaawam du ci wàll yu du ci benn xutba ba ci jamono sañ tubaa ji kon bu la yàlla dogalee boobu nga ciy liggéeyal sëñ sa bis bii mu dëppale ko ak bis boo xam ne benn bis bu ko gën a kawee amut buñ doon jaay mënoo koo jënd samedi la 5 septembre 1895 ci la sëñ Tuubaa signé woon ci bureau ba ca Ndar wax qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad tey di samedi 5 septembre nga taxawal fii di décorer alquran loolu dama lay wax ne la liggéey bu yàlla nangu képp la waaye bu dutoon lu yàlla nangu mënoo koo amee noonu mënoon nga koo def la 4 septembre mënoon nga koo def la 12 septembre waaye samedi 5 septembre 1895 lañ jëlee woon sëñ tubaa ci géej gi samedi 5 septembre 1895 nga dajawaat fii di décoreel sëñ tubaa alquran kon loolu yaakaar naa ne soxna si war naa rafet njort xelam war a dal ci ne ab liggéeyam yàlla nangu na ko kon nag sëriñ bi nee na nii nga xam ne noonu nga terale alquran ci jënd ay portable yu seer jënd ay kaamile alquran jënd ay mustakeer jënd lépp loo xam ne dana tax nit ki mën a dund dund gu sell nga terele ko alquran jox ko donga yi doon jàng alquran nee na mi ngi ñaan ci yàlla yal na la yàlla terele noonu ci barkeb alquranul karim sëñ Tuubaa dafa wax ne alquran dama ko daan teg ci ab lal ñi am ay lal ñëpp dañ ci daan tëdd di nelaw su tàngee ñu taal seen ventilateur baa ñu taal seen climatiseur sëriñ Tuubaa jamono jooju climatiseur bi gën a seer ak wantaay lay doon mu defar lal bi gën a seer lal ci mbàjj ma gën a seer jënd parfum bu seer teg ko ci naan ko yaa kitaabal karimu anta habibi wa xalili wa kunta xablu tabibi day fab alquran ji teg ko ci kaw lal bi fab ab sër bu diis di ko upp di ko xëpp parfum naan ko yow yaay ki nga xam ne yaay teraanga yëpp yow yaay docteur bi nga xam ne yaa mën a faj jàngoro yëpp kon fa sëñ Tuubaa tegoon alquran doomu adama mosu faa teg alquran kon nag teraanga joo tereel alquran rek alquran yaayoo na ko waaye loo tereel alxuraan sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla alquran tereel la teraanga ju ëpp jooju tereel ko ci adduna nag yaag sa kilifa yëpp tereel ko ci adduna yaag sa wayjur yëpp teral la ko ci àdduna yaag sa njaboot gépp nag teral teral ko it yaag koo xam ne xam na la wala kuy sa mbokk wala koo yéene lu baax teraange alxuraan ji yar na jaar ci yow jàll ci ñoom ci barki Cheikhul Khadim sëñ daara bi sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax nee na ba jàll ci sax ci dongo yi fiy jàng ak seeni waajur jaar ci sëñ daara bii nga xam ne moo leen di jàngal sëriñ bi di la xamal na dangaa ne ci jihaad jihaad na ku ci nekk da ngay am aw fit waaye am jom waaye def sa sa sa yéene ci gañe jihaad ji gañe jihaad ji moo di dong yiñ la jox nga mën a taxaw ne nanga mi dong de maa tax ñu mokkal alxuraan ci man la ko yàlla jaarale nanga mi dong de maa tax ñu xam seen farata ak seen sunna nanga mi dong maa tax suñ kàbbare di julli mën a jàng fatiha ju sell ak lañ ko booleel loolu nee na boo ko réussiree am nga li nga koom mi nga xam ne moo gën a rëy ci àdduna gën a rëy ci àllaaxira te mënoo koo fàggul sa bopp kon nag sëriñ bi nee ne mi ngi la ciy jàppale di la ci ñaanal yàlla la sa baay yéene woon ba ñaanoon ko nga jàngee alxuraan ci daara sëriñ Moustapha Guèye ñëw fii di ko jàngalewaat yal la ci yàlla taxaw ba am ci ay ndam yu baree baree bari yoo xam ne danañ mën a génne jigéen ñu bari génne góor ñu bari ñu ne ñu nga mokkale daara alxuraan ci sa daara ji ci sa loxo bii donc yi fiy jàng sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal ci yàlla ñoom ñi fiy jàng alxuraan ak seen wayjur yi leen andi ñuy jàng alxuraan ñoom ñëpp suñu borom dugal leen ci biir teraangay alxuraanul karim te alxuraan kum jàpp dana la teral ci àdduna waaye boo faatoo nga xam ne alxuraan képp mat a jàpp ndax mu dana la teral foofee ci àllaaxira sëriñ bi nee mi ngi leen di sant loo ci loolu bu baax di sant bokk dëkkandoo yi bu baax a baax di di dolli nag tuuti sëriñ Ablaye dafa wax ne bi mu defaree daara ji dafa gis ne koñ bi amul jàkka te jàkka la njëkk def ci kër gi mu bëggoon a defaraat jàkka ji ba mu baax mu ubbi buntu mbedd mi def ko li wa ci leex waa quartier bi di ci mën di jullee sëñ Moustapha it xamal maama am na daayira bu ñu fi sos tudde ko daayira maam Cheikh Anta gone yi dañuy def bu ñu wàccee ku am juróom andi ku am ñaar fukk andi ku àgg ci juróom-ñett juróom-ñetti téeméer mooy sab dañoo bëgg nag daayira boobu sab daayira saa yu ñu jàppee bisu woote bi bis boo leen ci wax ñu def ko muy bi seen bisub ziar at mu jot ñu dala ko defal waaye daara ji moom day àndaku ak daayira di di jàng alxuraan di dajale seen addiya di ko jox Serigne Touba nee loolu mooy seen yéene nga ñaanal leen ci kon nag nee ne ñi ngi sant bu baax di jégguluwaat bu baax a baax di ñaanaat yàlla sun borom gën la fee yàggal gën a dooli sëg wér ba lépp loo yéenee liggéeyal lislaam lépp nga liggéey ko tañ ànd ko te am ci ngërëmul sëriñ bi mu ne sëriñ bi nee na wax nañ ko niñ ko bëggee waaye na leen wóor ne nee na moom mii ci daara ji la bokk njabootu sëriñ tubaa gi nga xam ne ñoom ñëpp wax naa leen daara ji mu tàmbalee ci alaaji baara cheikh mouhamadou lamine jaaraat ci sëriñ tubaa cheikh sidi al muxtaar ñëwaat ci sëriñ tubaa sëñ muntaxa ñoom ñëpp ànd nañoo nun bokk ci daara ji na leen wóor ne daal ñun ñëpp ci daara ji lañ bokk ñu nag ku bokk ñoom daara see boo sam xel dal adduna ak àllaaxira jërë ngeen jëf loolu rek jërëjëf nee na sëñ ji ah yow lu sëñ bokk ci nga bokk <laughs> sëñ Muntaxa nag nii ñu ko defee laneen la ndax daf ñoo digaloon kenn ku ne nanga digal sa mbooloo ne bu ñuy ñëw ci màggal gi nañu fàggu ay masque ci wàllu saayir buñ fàggoo masque yi fàggu liggéey bi ñuy raxasoo ni ko docteur yi diglee la ca des ci baatin moom sëriñ bay ñu koy gàddul